ngi ci combat spécial bi dox ci diggante bu kilomètre cinquante ak boy séeréer bu raay buntu dépôt bi consulté ay siisam sifflé na génn seen diggante feu rouge moo nu moyen eh, waa lii moom lu mu doon yooru na yooru na waaye fitina jóg ma jaxabal Farouz jàpp na Boy Séeréer jàpp na Boy Séeréer ne arbitre daa sufle rek mu yooru wax na dëgg nag ndeysaan ñaari xale yaa ngi jàppante Farouz moo nu wan ginnaaw booy séeréer la ñu lool Oula moo nu féete ndejoor ma rokas moom farouge ma ngay door ca suuf ma door ca suuf bu kilomètre cinquante da koo kor ay faar yi ci sedd bi moom metti waaye booy séeréer jàpp na Farouz a ngi koy door booy séeréer a liggéey ma koy sukk na ndeysaan jàmbaar la waaye ñaari po yi dooloo wuñu xeex booy séeréer sës na ko ci saaku koy caxabal Allahu akbar doole doxul jàmm da ko jaxabal doon ko wéeru mu remplacer ko moom